tey ku ñëw ci salle bi di nga fi fekk ay jeunes yoo xamante ni réew mi lañ nekkoon àndoon ak président Idriss Seck mais comme que bëgguñu woorkat ñu bàyyi foofu ñëw pour ànd ak ñun tey ku ñëw ci biir salle bi di nga fi fekk ñoo xam ne mu musuñu def politique tey ñu jóg mobiliser wu organiser wu ñëw pour jàppale ki nga xamante ni mooy président Karim Wade ànd ko ak ñun donc lii tey ku mu dalul sa xel jàpp naa ni dara du dal sa xel tey ndaw ñi génn nañ femmes yi génn nañ suñu anciens génn nañ ñëpp mobiliser wu nañ nee nañu PDS moo leen doy parce que amatuñu espoir ci ki ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk réew mi mais aussi ki nga xamante ni moom moo fi nekk président conseil départemental muy Idriss Seck jaay na ngorom ki nga xam ne mooy président Macky Sall donc Thiès bëgguñu workat donc ce qui fait ñëpp mobilisé wu nañ di xaar ki nga xamante ni mooy président Macky en tout cas man en tant que responsable départemental des jeunes tàllal naa loxo ndaw Thiès yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma kenn pour que ñu àndandoo ñun ñëpp xeex xeex bi ñu war a xeex. jël maire yi Karim Wade ñew ñu installer ko fi nga xamanteni mom moy palais de la république alors que yéen a ngi daw ci ginnaaw amnistie pour mën a nekk candidat est-ce que doon wut plan B mo gën. dama ni amnistie day tuxo ci lo xamanteni ni tay tey mën nañ ne atté amna fa li nga xamanteni mo atté Karim wad di créer garantirul les droits de la défense de la défense alors que ci déclaration universelle de l'homme article onze bi daf ne képp koo xamante ni jiiñ nañ la mbir yow mënuñu wax ne yow yaay yaa def tu n'es pas coupable tant que atte wuñu la ci cour bo xamanteni ni cour publique la ba paré ñu garantir les droits de la défense manam yow sa ak ak sa yelleef ñu garantir ko la CREI garantirul ak ak yelefu Karim Wade donc le feu soso le feu tukkee lolu ñun mënuñu ko reconnaître ñun liñu xam moy Karim Meïssa Wade amelul état du Sénégal ñaari alaykum au contraire dañu ko war dédommager mom parce que dañ ko tooñ

la situation catastrophique de Kibi Ndaouni, Amatouni Espoir, Macky Sall, avec le régime, si nous sommes à une place, si nous sommes à l'hôpital, Lolo, abino à l'hôpital. C'est ce que nous avons fait. Il y a un vote. 2012 et aujourd'hui, Macky Sall a 40 000 milliards. 40 000 milliards d'euros ndox muñu nan amuñu ko courant bu doy amuñu ko sank ci salle bi ñoko ko constaté ndoo ñaata yon la courant coupé ci bir salle bi donc nguur gu mel nonu suñu ko amé japp naa ni li li fi dess moy fexé nu leen fi jëlé ñom indi ki nga xamanteni bayam mo nek le meilleur président de la république de l'Afrique. de bi Afrique commence tambalé am ay ay chef de l'État, Abdoulaye Wade moy le meilleur chef de l'État de l'Afrique. koku kooku dama ni mburoog soow loolu jeex na fii li fi am mooy méchoui bu nooy añoo añoo mooy xar bu ndaw boo xamante ni dañ koy jël fees ko dugal ko ci fuur mu nooy nepp añoo boobu nag mooy ñëw jëlee fi mburoog soow te mooy ñun ñii man maa leen ko wax dinañu gagné Idrissa sekk ci élection yi di jëm parce que Thiès bëgguñu woorkat te ku woor kay dañ lay jël tegee la gauche. Idrissa Seck nekk dama ni. su Idrissa Seck nekkee premier ministre ñi and ak Idrissa Seck ñom ñep yoré ay portefeuille yu portefeuille yu gëna kawé muy économie muy intérieur muy justice muy affaires étrangères ak yi gëna kawé buñ leen dajalé buñ ñëwé ñu battre leen xam nga lutax ci Thiessois yonam newul ci ku am ci Thiessois ku goré lay andal. ku xam bopam ku diñ bo perdre sa dignité bo amé ay milliards ci ñëwee Thiessois yi lijjantiwuñu la la preuve mais 2007 bi Idriss Seck di dem élection Ablaye Wade mi ngi woon ak ay milliards est-ce que gagné na Thiès kon kay jeex na.